illaa qalila yàlla subhaanahu wa taala mu ne yéen day dara su xewee rek ngeen nekk di ko siiwal ngen nekk di ko waxtaanee waaye nag su fekkonte ne mbir mu rëy su xewee dangeen koy delloo si sunna yim sa waaye tam ngeen delloo ko seeni kilifa yi bi maanaa seeni njiit yi ak seeni borom xam-xam yi boobaa day di ngeen am solution waaye borom bi subhanahu si mu ne na ngeen xam ne kat su fekkente ne yàlla yére mu lew woon kon di ngeen de di ngeen nekk ñoo xam ne di ngeen topp seytaane waaw maa ngi doon wax léegi ci wàllu euh, mbirum loi bi nga xam ne Sénégal mooy tere wàllu góor jigéen donc ndax dañ laaj léegi premier ministre Canada mu wane moom taxawaayam ci àdduna bi pour défendre lépp luy droit wu doomu aadama ma xamal ko ni loolu bu ñu kon nangulee loolu moom ci réewam nañu nangul suñu réew fii ci Sénégal ne suñu ay loi dafay taxawal li nga xam ne ñun moom la ñu nekk muy d'abord ay africain ay ay africain waaye itam li ci gën a bëri ay nitu diine ak majorité islam ay nitu diine globalement et suñu dëkk dafa am sutura dafa am ay valeurs yoo xam ne mayewul ñuy nangu lépp luy wone Euh, loo xam ne méngoowul ak suñu gis-gis parce que góor jigéen euh, loi bi moo ko fi tere donc loolu xamal naa ko nit fas yéene ma ci fànn boobu en tout cas yëkkati ci benn doxalin buy delloo Sénégal ginnaaw si taxawaayam loolu du tere Sénégal réewu démocratie la réew buy respecté droit de l'homme la waaye lépp nag si biir suñu dundul diñ ko fas yéene doxalee ci ci worma ak ci sutura loolu moom Sénégal euh, dina si taxaw bu baax a baax te du ci dellu ginnaaw benn yoon jërëjëf. dem ba ay lobéeg yu kenn xamul ci àdduna bi am seen fullay di tasaaroo ci àdduna di fu ne ñu taxaw ba ngir tasaare mbon xam ngeen li xew fan yi te te ci ay jamono ci gannaaw kenn mës la gis lu ñaawe noonu ay bindeef yi nekk ci seenum réew gëm seenu mbon di ko dund am fitu ñëw taxaw ci réewum jàmbur ne fa cépp ñu doon ay jullit nga ne leen ak ngóor jigéen de war ngeen cee wax war ngeen cee wax luñ ciy wax ñu ne mu ne dugal ko ci loi yi lañu war a def njiitul réew mi tontu na tontu lu baax a baax ci nim ko waxee ci wolof nu dégg ko mu di nanguwu ko ndax sunum réew ay africain lañ te li ëpp ci noonu nitu diine lañ kon ñoom loolu duñ ko nangu loolu tontu lu baax la waaye man damay wax ne ab tàmbali la la war a doon waaye foofu waru na fee yem kii yor ak mbonam lu toll ne na yàlla binde woon nit ne góor a ngee jigéen a nga nële nga wëlbati ko ne góor dafa war di ànd ak góor jigéen war di ànd ak jigéen war na noo dem ba seq jéego weesu suñ nu ci woo nu naan nun day loolu sunu askan nangooguñ ko ndax dañoo doon ay jullit loolu nangam waaye dañ laa war a convaincre ni lii ci boppam baaxut lii dafa baaxut yéen da ngeen ko war a bàyyi loolu lañ leen war a wax foofu la wax ji nekk dëgg la niñ ko tuddee ci sunu loi yi lu baax la acte contre nature maanaam dëppoowul ak bindu doomu aadama loolu yi lañ leen war a jottali bañ xam ne kuñ ci dajeel ci africain yi wala ci jullit yi dañoo war ne séew a ñoom waaye fitu nag yëkkati seenu drapeau di ca woote waruñu koo am dañoo war di nëbbatu kuñ ci dajeel ngay président wala dara noo ngi ñaan sunu président yi ci Afrique ak ci monde islam bi ku dajeeg doomu aadama yooyu ñi lay jéem a wax lu jëm ci loola bul nekkoon ko nun duñ ko def ndax nangam ak nangam ak nangam waaye ne lii ci boppam dafa baaxul da ngeen koo war a bàyyi yéen parce que lii ngeen ko bàyyiwut ay loroman nangam ak nangam ak nangam soo ko waxee wax ju mel noonu bu ëllëgee xelam du jëmati ci mu di la wax lu mel noonu waaye la muy xalaat mooy kii fan lay jaar ba mucc ci moom yu bari nag da cee laxasu lu bari da cee laxasu boo gisee euh, lu baree bari euh, ña ci war a wax di wattandiku mooy ay sanction yu bari yu làqu ca gannaaw ak su ma defee li mën nañ maa xañ léegi su ma defee nangam mën nañ maa xañ nangam waaye loolu lépp ay wax la rek dara nekk ci kenn ku nekk réew ma nga nekk bu yàlla dogalee nga jiite leen la saw askan bëgg nga ànd ci ak ñoom mu dëppoog ndigalul sunu borom tabaraka wa taala loolee euh, kenn mun laa fekk ca biir réew mi ne dañ leen di faagaagal suñu amee seeni alal nañ ko téye waaye nañ nu bàyyeeg leen am te nañ xam ne nag réew mu nekk lañu ñu ci li ñuy dundee moom yàlla def na ko fa seen wërsëg ma nga fa leeral diine